asalaamaaleykum bokku jullit ak bokku taalibe bi ni seetaan jot nañu ndigal sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg loolu te ànd ak wér jaar ca kan nag sëñ Amdi Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak kan ci kilifteefu nag sëñ Abdou Rokhaya xalifa sëñ Mor Talla Fall ak rakam sëñ Dame Abdourahmane ak sëñ Abdou Sakor Fall ñu jëm nag ci bisu ñëpp lu nekk ñu ngi jëm ci le premier mai kan moo woote nag sëriñ cantam gaa ñëw muy le premier mai 2023 waaye nag fu ñu koy defee ci stade Demba Diop. nga bis bu rëy ren nag mooy vingt et unième édition sëñ bi nag mi ngi ko yëgal sëñ am di xalifaal xalifa di ak mboolem njabootu Chérif Assane sëñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng ak mboolem njabootu sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Cheikh Fall Cokke ak mboolem njabootu sëñ Mbacke Fall sëñ Cheikh Fall Mbawar ak mboolem njabootu sëñ Aliou Fall Mbawar. waaye sëñ Talla Fall ak mboolem njabootu seen Abdou Rahman Fall ca Ndar sëñ Talla Fall ak mboolem njabootu sëñ Abdoulaye Fall Ndar sëñ Fallou Fall ak mboolem njabootu sëñ Abdou Sakkoor sëriñ Cheikh Ngouda Fall ak mboolem njabootu maam Saliou Fall Daaru Xafoor waaye sëriñ Assane Fall Daaru Xafoor ak mboolem Cheikh yëpp nag bàyyiwul kenn bis bi nag le premier mai 2023 la ci stade Demba Diop waaye bala maa sori ba ñu ci maam Cheikh Ibra Sène mi nga xam ne dina ñëw ci wàllu autorité yi. jii toog di Serigne Cheikh Khadim Fall nee na mu ngi ci woo son excellence monsieur le président de la république El ji Macky Sall nekk xaritam nekk wala réem Serigne bi nee na mu ngi koy gërëm ndax gis na taxawaayam bu baax ci bis bii ah sëñ Cheikh Khadim Fall mu ngi ciy woo président de l' assemblée nationale di kan Amadou Mame Diop honorable député di ci woo. premier ministre Amadou Ba waaye ak kan président du CSE Idrissa Seck l'ancien maire de Thiès waaye di si woo présidente de la haute technicité de collectivité territoriale di Aminata Mbengue Ndiaye waaye di ci woo ministre d'État mbay Ndiaye ak kan ministre conseiller Isma Dioum a ah, seriñ bi nag nee na bu noppee foofu mi ngi dul baaraam kii di ministre l'intérieur di Antoine Félix Ndiome l'homme de Khombole waaye di woo le ministre de la jeunesse et des sports Yankhoba Diattara sëriñ bi mi ngi ciy woo le maire de Dakar di ki nga xamante ni mooy Barthélémy Diaz waaye mi ngi ciy woo le gouverneur de Dakar et les service technique et régionaux waaye sëriñ bi mi ngi ciy woo le préfet du département de Dakar di ci woo le sous-préfet de Dakar di ci woo le sous-préfet de Grand Dakar waaye tamit di ci woo le maire de Sicap sëriñ Cheikh Khadim Fall nee na bis biit mi ngi ciy woo le maire de Sacré-Cœur ak le maire de Grand Dakar waaye mi ngi ci woo l' ensemble des imams et préfets des quartiers yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci gox yi ñu tudd ak Dakar gi yëpp. dafa am ñaar ñoo xam ni seen digganteeg sëriñ bi ñëpp xam na ko maître Madické Niang ministre d'État ba Mourid Sadikh ba doon kenn sëriñ Cheikh Fall Khadim lu mu ne ma ca biir ak kan nag ajatu ñaar ñu mu baax mi ñaar ñooñu dañuy dañoo doon ñoo xam ne ba liggéey bi tàmbali bi ñëw nga ca biir. jël jël jël nag sëñ si xaadim jox ko cër bu baax kon nag yéen bis bi yéen ko mu seen bis la waaye sëñ bi dama ko sëñ Mbàkke Cissé ak moo dem Mbawar Mbawar yëpp nag daayira parce que sëñ ci njiital sëñ Am Ndiaye daayira Sikap sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ Badou Seck sëñ Cheikh Diakhaté ak sëñ Malick tiin sëñ Talla Salañang ca Njaañ Daam Deer ca Louga Pape Diop Alem Mbeng ma Diop Cissé Ndar ak mboolem waa Ndar yëpp nag sëñ Xaadim Fall Joal ngañ Caam Mbuur Papa Ndaw jëwriñ Eh, jëriñ Papa Ndaw sa Thiès ak ñi mu àndal ñëpp Baye Iba Guèye ca Thiès Modou Fall Thiam Makan Dieng Ndiaga Dieng soxna Adama Bey waaye ca Medina Fall ak kuréel yëpp nag waaye sëñ mi ngi ko yëgal Talla Ngom ca Mbour waaye ak mboolem njabootu Moustapha Sène yëpp ca Ndengaleer ak kan nag sëñ Ibrahima Guèye yàmbaar ji waaye sëñ Moustapha Diouf Aboubacrine Edwin ñu ngi la ko yëgal Jibril Fall sëñ Babacar Mbaye ñi ngi ko yëgal ak kan nag sëñ Moustapha Diakhaté ak soxna Kani Diop ak mboolem waa ñàgg yëpp tundoo bàyyiwuñu kenn bitim réew nag France ba ci na Paris ak mboolem kuréel ya fa ne waa Télé Julien nag bis xam ngeen ni yéen ko moom ndax sëñ bi bu ne cëpp Télé Julien Paris yéen a koy teer yéen a koy gàttandu ànd ak moom ci liggéey bi fédération daayir yëpp ku leen lim juum Espagne Italie Angleterre États-Unis Luxembourg Suisse Suède Afrique du Sud ak même ca Mauritanie ak Gabon Abidjan ak mbooleem daayira xasida yéeg ak zikurlaa yi ak yi nekk Touba ak biir Ndakaaru di ko wër léegi na ma jox kàddu gi nag ku ñëpp xam muy maam Cheikh Mbodj mu wax nag ci turu sëñ bi waaye waxaale li nga ko wax ci ndigg yi. sëriñ bi nee mi ngi ko yëgal sëriñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta Fall ak mbooleem sati sataati seex Ibrahima Fall yi bàyyiwul kenn. mi ngi koy yëgal sëñ Mbacke Ndiaye xalifa sëñ Baara Ndiaye ak seex yi àndoon ak sëriñ seex maam seex Ibra Fall yëpp mi ngi ko yëgal ku nekk ci bopp kër ga ma ngi leen ko yëgal di ko yëgal njaboot bi ak taalibe ñu ñëw ànd ak moom bis bii muy defal Cheikh Ibra Fall sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal kuréeli xasida yëpp yi ci réew mi rawatina yi nekk biir ndakaaru nee na mi ngi koy yëgal kuréeli sikkurullaahi yëpp yi nekk ci réew mi mi rawatina ñi nga xam ne ñii ñi ngi biir ndakaaru bàyyiwul kenn ngeen ànd ñëw ànd ak moom sant Cheikh Ibra Fall fàttaliku ko ñaanal ko jërë ngeen jëf balaa sëriñ boo xam ne mille cent onze maanaam junni ak téeméer ak fukk ak benn ñoo leen ubbi jataay bi sëriñ Cheikh Ndiaye soog a tàmbale waaye sëñ Aliou Fall yow laay wax nag yow laay jox nag nga wax ci bitu bisu Paris boobu di le treize juillet nga xam ne buñ ci jógee rek moom la ñuy song ren ca Paris. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu nuyu mbokki jullit yëpp di suñuy kàddu ci ndigalul sëriñ Cheikh Khadim mu ñu ñuy soññee bis ba ñuy defal euh, Cheikh Ibra fële ca Paris di tombé 13 juillet da di sëñ sëñ Cheikh Khadim dafa am liggéey bu yaatu bu muy liggéeyal maam di baax ja ca ca bitim réew euh, di ko commencé ca ca ca Paris nag muy liggéey bu yaatu bu am solo di wane kan mooy maamam ji di dimbali taalibe yi ñu ngi ci woo ñëpp nag euh, ñu nekk bitim réew ak ku ci mën a ñëw ñu ngi la ciy woo ci ndigalu sëriñ Cheikh Khadim muy bis bu am solo boo xam ne euh, yàgg nañ ko faa def muy di wane jëmmi Cheikh Ibra ji nga xam ne sëñ Cheikh Khadim moom bëggu cee wane boppam dara maam ji dong lay wane ak dimbali taalibe ya fa nekk ñi di ko ànd ak waa kuréelu tubaab Paris bi ñu ngi leen ci woow bu baax a baax a baax bu bis bi jàllee euh, bisu euh, premier mai bi bu jàllee naka ñëpp commencé waajal ñu nekk ci bitim réew mu mu ndax mu gën a euh, xéewale na mu daan xéewale wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bis bi nag ñu ngi koy fàttali ci stade yi mu jëm le premier mai 2023. Alioune Badara Sy yow laa jox kàddu gi nag ci wàllu programme bi nga xam ngeen ni plateau yaag waxtaan yaag ziyaar yaag yooyu yëpp yaa koy wax nag ñu soo a diil si nag ci événement bi. su fàttaliku ba su ñaan ba su cant bii nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Khadim Fall di defal maamam ju tedd ji di maam Cheikh Fall xayartu programme bi nii la tëddee comme programme mu événement Mouride yëpp. programme bi la premier mai lay tàmbali ba ci ëllëg sa suba premier mai bi à huit kuréelu alxuraan yi danañ fa nekk seen taxawaay yi nga xamante ne taxawaay yu rafet yaatu sëriñ moo leen ci o di leen ci soññ waa kuréelu ñi nga xamante ne salaatu ala nabi sikkar xasida loolu la ñuy yendoo ba 14 bu ñu jullee tisbaar ba noppi wëlbatiku dégg nga maam berndeel mbooloo mi nga xamante ne ñoo bàyyi ko ci gox yu fasantikoo yi ci kaw loolu tamit am na exposition boo xam ne daf fay am nga xamante ne moom mooy fàttali dund ak jëf yi nga xamante ne moom ku baax kooku di maam Cheikh Ibrahima ak ñi nga xam ne ñoo ko donn ak ñi nga xamante ne moo leen seexal defar leen dë leen ci barab yi loolu tamit dina fa am ñu woye liggéey bi tamit ci loolu ñu ko tàmbale woon ci alxuraan xasida sikkar ak fàttaliku nu mu tudd euh, dund euh, maam Cheikh Ibrahima ci bëccëg yëpp dem ba julli euh, gée bu ñu jullee gee ba noppi ñu wéyal liggéey bi ba minuit wi nag ci la ñuy def cérémonie officielle bi nga xamante ne lépp luy autorité étatique lépp luy autorité kilifa yi nga xamante ne ñoo bàyyoo ko num tur ci goxu yoonu murid yi ak ñi nga xamante ñoo bàyyoo ko ci kër diine yi ñëw di wëlëre sëriñ bi di sëriñu sëriñ bi ñoom ñooy ñëw def nu mu tudd euh, waxtaan boo xamante dañu koy jëmale ci euh, axlu àdduna bi ndax média bi fi nekk day uti boo xamante dafay dem ci àdduna bi stade bi lañ koy defee mais c'est communication pour le moom moo tax heure boobu lañu def cérémonie officielle bi sëñ bi jël kàddoom jox ko ñu ko doyul ñu ko doy ñu ñu biiral ay euh, yéeneem bu ñu jógee ci loolu nag mu am benn conférence boo xamante ne bu mag boo xamante ne borom xam-xam yu yu fasanti ko ci yoonu murit dinañ waxtaan ci dund ak jëf maam Cheikh Ibrahima Fall ñu baaxee ko askan bi. xam ne jamono yi ñu toll day jamono joo xamante ne ah, démb sax gënoon na waaye rawatina ci fi ñu toll fii ñu xam ne jël jàngale maam Cheikh Fall teg ko ci loxo ndaw yi nga xamante ne képp koo xam ne boo amee leneen téyal waaye bu ñu la wanee jàngale maam Cheikh Fall boo rek di nga xam lan mooy war a fettax ndax moom jàngaleem ci ñett la nekk. ñaqu ñuqi ñukki ñukki ngir jëriñ jëriñe waaw fa la maam Cheikh nekkoon loolu la ñu nar a fésal bu ci bu bu ñu weesoo loolu nag ah ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne moom moo di Serigne Cheikh Ndoye mu di Murid Sadix di Baye Fall mu ànd ak kuréel yi nga xamante ne daayira yi nekk ci Dakar Sénégal yëpp ñëw teewoon ñëw yaatal sikrulaa bi nga xamante ne moom lañ ko xamee sëriñ bi gërëm na ko dolli na ko gërëm ñoo ngi koy xaar ci liggéey bi liggéeyam la bu loolu nag bu ñu demee ba fajar gi muy euh, fajaru le deux bi Euh, ñu sëriñ bi ñu ñu tàbbi ci sëriñ bi mu ñaanal ñu gërëm ñu ba woon incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah mboolem fédération daayira Baye Fall yi ne Ndakaaru ak jëwëriñ yi ñu ngi leen di woo ñu teel a ñëw yendu si ak sëñ bi ndax ñu ma a siyaar ñëpp mën a siyaar nag ba guddi ñu dem cérémonie ba le premier lay doon premier mai 2023 yenn ci yàlla yóbbu ak jàmm wasalaam